di wax tey nii li ñu fi boole rek mooy euh, jamono yële weesu dafa am ay jeunes euh, yoo xamante ne nii dañu ko amoon jafe-jafe parce que dañu leen a jàppoon ci problème mu casque ba taxoon ñuy génn di ñu solliciter te loolu lu Jurbel rek c'est à travers tout le Sénégal donc ñu xam ni casque déjà doublement dimension sécurité bi mooy ci ëpp solo parce que kenn ñaanu ko yàlla mais bu dara amee il faut boo protéger woo ci ngay ëpp chance muy benn beneen bi aussi. Euh, képp kuy dawal moto aussi dafa ko ko war a am comme gànnaay parce que mën naa tax ñu arrêté la donc te comme jamono yi gis nañ accident yi ni mu demee woon ci réew mi ñëpp di wax problème mu sécurité routière donc ba tax am matuwaay yoo xamante ne nii njiitu réew mi le président de la République Macky Sall ak ñi yore wàllu transport ak chauffeurs yeeg yëpp jëloon nañ ko ñu jàpp ne comme am na ñu fi nekk nekk ay transporteur mais yore ay Jakarta muy euh, ñi yore moto taxi. Euh, dina baax trop ñu jàppale leen ci ay casque mu jumtukaay yoo xam ne mën a utiliser looloo tax ñu mobiliser wut tey deux cent casques yoo xamante ni dañ koy jàppale jeune jakartaman yi nga xamante ni dañ nekk di daan seen doole ci loolu ba pare soxla casque bi te peut-être yenn moyens yi mën naa bañ réunir pour que ñu am ko donc looloo tax ñu dajale leen tey mu nekk action sociale buy dugg toujours ci campagne sociale bi ñu lancé ci année 2023 pour jàppale deux cent jakartaman pour que ñoom ñëpp kenn ku nekk mën a am casque nga am sécurité parce que sécurité mooy sa kaaraange te mooy tax bu ëllëgee aussi nga man a continuer liggéey bi ngay liggéey donc looloo tax tey ñu jël mesure boobu pour jàppale leen casque yi ñoo nekk nii c'est au nombre de 200 donc kon tey 200 jakartaman la ñuy jox euh, casque yi voilà donc loolu je pense que mooy li ñuy def remise symbolique bi mooy li ñu doon def euh, nii nii voilà waaw non Pape Modou bëgg lu président de la République Macky Sall am victoire ah. 2024 parce que tout simplement kenn ku ne xam na ni la lañ yore te parti boo ko yoree da nga koy yaatal donc lépp luñ mën a def ba mu yaatu danañ ko yaatu yaatal muy déjà première chose deuxième chose mooy dañ bokk ci coalition boo xamante ne nii mooy Benno Bokk Yaakaar ci suñ sous coalition coalition républicaine sàmm suñu réew kon bu ñu dooleele suñ bopp wala ñu dooleele suñ sous coalition dañuy dooleelaale coalition président de la République Macky Sall kon suñ yéene lépp mooy mouvance bi ñu bokk fexe ba mouvance boobu taxaw am doole joo xamante ni nii lu jóg rek dinañ ko mën a contrecarrer te bu ñu demee ci élection présidentielle bi 25 février 2024 ñu mën a gagné kon loolu moo ëmb yenn actes yi c'est vrai que beneen bi nekk ci suuf nag mooy il faut ñëpp comprendre ni doomu dëkk bi lañ fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo kon bu ñu mënee contribuer ci jafe-jafe yu population bi di am danañ ci contribuer ñii am nañ problème mu casque wax nañ ñu ko moo tax tey ñu distribuer casque ñeneen amoon nañ problème mu machine wol wax nañ ñu ko ñu xool nan lañ ci mën a taxawee ñeneen am nañ problème mu pompe parce que seen kër dafa inondé ñu taxaw ci ñi am nañ problème ordinateur ci seen école ñu wax ñu ko ñu taxaw ci mhm. ci logique boobu lañ nekk ñu ñaax aussi jeunesse bi wax leen ni leen donc nañ gën a am seen fulla am seen fayda xam nit ki bu réussir ci boppam la ñu bañ leen a woo ci violence ñu bañ leen a woo ci lépp loo xamante ni day yàq loo xamante ni ñoo ko defar lépp loo xamante ni day yàq loo xamante ni bu ëllëgee dañu obligé di ko defaraat donc loolu aussi c'est message bu foor la bu ñu bëgg a lancer la jeunesse diourbelloise il faut que ñu xam ñi leen mën a jariñ ñi nga xamante ni nii jóg nañ pour jàppale leen ci liñ nekk ñu ànd ak ñoom ci combat boobu mais plutôt ko ci combat boo xamante ni nii violence la wala lépp luy yàq ndax ku tedd ki sax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul dafa wax bu leer dëgg ak ak vérité ci kim nekk mooy jàmm mooy indi jàmm parce que tey jii bu fekkente ni nekkoo ci dëgg nekkoo ci loo xamante ni politique de vérité la ala kulli àll am jàmm comme ni mu waxoon ca Ndar rek que la vérité soit avec celui qui est sur le droit chemin donc boo nekkee ndaw dangay nekk ci yoonu jub yekk ci yoonu sell parce que loolu rek moo la mën a mbay ndam ëllëg sëñ Cheikh Sidi Matar yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla yokk ay leeram waxoon na ko fi ku yorewul doo yor dara ku teggi amul teggin tamit doo teggi dara ça veut dire kon ci discipline ak ay valeur yi fi mag ñu bàyyi bàyyi woon ci la ñu woo ñëpp parce que ci la ñu woo suñ bopp ci koñ bi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo mosuñu fee def lu ñaaw mosuñu fee wax lu ñaaw mosuñu fee toj këru kenn mosuñu fee saaga kenn mosuñu fee xas kenn mosuñu fee lakk këru kenn mosuñu fee wax kenn sax baat yu ñaaw kon logique boobu aussi ñu nekkoon ba agsi fii ñu agsi loolu la ñuy woo suñ ay jeunes frères parce que logique boobu tamit bu ñu ci nekkee ëllëg ci seen biir dana ci am ñoo xam danañ dem ba doon yu mag comme ay Njaga Njaay dana am ñoo xamante ne danañ dem ba nekk ci ay chef d'entreprise yu mag ñenn ñi nekk ay ministre ñeneen ñi nekk et cetera parce que on ne sait jamais am na ci ñuy jàng et donc kon nit ki bu fekkente ne dafa bëgg defar avenir am day jaar ci yoonu tax aveniram am a defaru mooy yoonu dëgg mooy yoonu fa faayit xeex génn sa njaboot ci situation bi mu nekk mais pas ci yoon woo xamante ne nii yoonu dëng la woo tey bu ñu la arrêté yóbbu la ci prison wala dara sa njaboot gën a am jafe-jafe nga indi leen ay problème kon donc yooyu yëpp c'est à éviter encore une fois tey man léegi mu am cinquante an kon bi fu ma neex jaar mosuma fee am ak kenn histoire mosuma saaga kenn mosuma dépassé kenn ci wax bu ñaaw waxuma la nag di manifester di toj wala ma yàq mosuma koo def kon yaakaar naa ne ñi ma gën a féete ndaw ñoom aussi maa ngi leen di woo ci loolu lépp lu jëm ci violence nañ ko éviter la culture de la paix loolu la ñu Cheikh Ahmadou Bamba jàngal Jurbel dëkku taalibe la dëkku murit la Jurbel dëkku tijaan la Jurbel dëkku religion la en général kon valeur yooyu nañ ko cultiver ci suñ bopp cultiver ko ñu fi nekk loolu mooy suñ jàmm parce que mooy jàmm dëkk bi donc message boobu laa bëggoon a lancer di sant ñëpp di gërëm ñëpp. man la maam Thierno Mbacke maa ngi dëkk Kër Cheikh laa dëkk fi laa bàyyi ko ci Jakarta yi la ñuy faral di yëngu waaw ci Jakarta la ñuy faral di yëngu. waaye dañoo amoon jafe-jafe problème casque te ci la ñuy yëngu comme ci la ñuy yëngoon rek ci la ñuy faarawaate li ñuy yóbbu ci kër ga ku ci mel ni Pape Fall nag moom wax dëgg yàlla jàmbaar lool ndax mi ngi ñuy jàppale ci kaski yi ngi ñuy jàppale ci liggéey bi lu ci bari mi ngi ñu ci jàppale kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram te fi mu bëgg àgg mu àgg fa ci kàttanu yàlla ndax wax dëgg yàlla ki nga xam ne am na soxla ci casque te yorul njëgg wala nam mu koy amee dana métti ci moom nga dimbale ko wutal ko ko defal ko ko gratuite loolu moom wax dëgg yàlla amuñu fayam xanaa di ko ñaanal suñu borom gën koo jàppale ndax fi ñu toll nii tey ku ci yor casque boo dajeek ñi nekk ci yoon bi di tere ki solut casque boo solee casque moom da dem sa yoon rek waaye boo solut casque nag faa nga xool foo ji moom mooy toog foo noo mën a def ba génn ci te kon ki jàppale ci casque bi nañ ko gën a jàppale ndax wax dëgg yàlla mi ngi ñuy jàppale ñun seen i kër seex ak feneen fudul kër seex kon nañ ko gën a jàppale rek salaamaaleykum wa rahmatullah maam Thierno Arendinde yaa ngi fii tey ci Diourbel quartier kër Cheikh jàppale leen ay ndimbal ci wàllu casque muy ay mesures yoo xam ne nii seetlu nañ ko yoo xam ne da ngeen goon ngeen di jaayanteeg way takk der yi tey ñu defal leen ko gratuitement jàppale leen ko tey ba néeg nga am ci loolu donc sant du ko gërëm ndaxte ñun sonn nañ si ay kas daw fu ne gauche droite am ñu fayam quoi ndax ay jeunes lan tool si tool si liggéey tool si suñu daan doole monsieur ko woon mën nañoo jàppale du ñu jàppale dañ koy ñaanal lu mu bëgg mu avance si kanam yokku te xam naa ne moom oh, dëkk bi am na si loo xam ni mu ngi si mu ngi waa dëkk bi ñun jeunes yi mhm. gis nañ ko bu baax te ñun ñun arrêté ni bëgg nañ ko ñu jàppale ndax suñu arrêté ne ñu nekk ne manqué na gas manqué na suñu taxaw naaj si naaj la ñuy taxaw ñoo xam ne loo xam ni métti nañu trop waaye amuñu amuñu fenn fu ñu ko mën def ndaw dëkk bi sañu ñu si dara bëgg kuñ si jàppale mu am suñu taxaw ndax de naaju tànge duñu am suñu taxaw amuñu kas xëy fii doo wàccee la 2000 francs doo bëggee jënd kas bëgg ñu laa jàpp fay 6000 francs day métti kon nag kii ñoo ngi sant ko gërëm ndax ñu tey jii li ñu am nii moom moo tax ñu am ko sant nañ ko bu baax gërëm ko bu baax wasalaam waaw dañuy sant Pa Modou Fall bu baax a baax gis nañ nekkul sax si lii nii gis na depuis élection locale yee jàppale beeg lépp ñu ngi koy gis waaw dañ lay sant di la gërëm di la ñaanal waaw di wax di ñaax sama mbokku taximaan yi nit su débrouillé jël ay casque jox la nan ko sol te yàlla rek tax parce que su defee acte bii nii tasuluñu ko ñu koy jël di ko jaay wala ñuy ñu bañ kaa sol ñu siy jàppaat day mel ni deful woon dara dama leen ñaax rek di leen sensibiliser sagam def na acte bu naas bii nañuy jël casque di ko sol waaw di sant Pape Bastoun tamit bu baax a baax a baax gis nañ nu mu jàppalee waa Texaco di sant ñëpp casque yi nag bu baax bi la. original bokkut ak casque Jakarta yi jar 3000. macha waaw ñu ngi lay ñaanal rek ñoo bëggee yàlla <laughs> yàlla. suñu mbokki taxi Jakarta man maa ngi tudd Moussa Touré nekk ci arrêt Kër Singam di xarit di nuyu sëñ Pafal di ko ndokkale tamit ci lii nga xam ni defalal nañ ko ndax manqué woon nañu. te sonaloon nañ ñu ci tamit comme ni ko waa ji waxee fii léegi rek dañuy dañ ciy liggéey mais nag su suñu liggéey ci bu demee ci ay dépenses ak frais euh, kër yaa naa dara desatu ci kon bu ñu ci jàppee diñ ci laaj ay six mille francs loolu dana métti trop ci ñun bon ñu ciy sant Pape du moom mi def acte bu rafet bi tey duñ na guléet encore duñ na guléet la ko def ndax def na fi leneen ak leneen loo xamante ni euh, ñun teg nañ ci suñu bët ndax ñun arrêt bii ñu nekk mbaar bi moo ñu ko may moo ñu ko defal kon nag dañ ko ci sant di ko gërëm bu baax a baax te lii mu sumb nag yàlla na ko suñu borom jàppale junju nag doy na borom xel lii mu def ñun xam nañ li tax mu def ko te xam nañ tamit fi mu mu bëgg ñu ànd fa moom te danañ ci ànd ak moom te man yaakaar naa li may wax ni am naa ci lu ma ci xam ndax dama dëkk moom te tamit def nañ génération maak moom ànd nañ liggéey foondoo nañ kon su ma waxee te am na lu tax ma di ko wax bon rakkam barki démb rek maa ngi jokkoo ak moom te am na ci loo xam ne man maa ngi koy liggéey pour ñoom kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla yokk ànd bi mu bëgg a ànd ak jeunesse bi ñu jàppale ko ci mu jàppale ñu ñu di ko ñaan yàlla taxawal ko samp ko wala li mu bëgg ci xol. moom bëgg lu président de la république Macky Sall am victoire ah. 2024 parce que tout simplement kenn ku ne xam na ni parti la ñu yore te parti boo ko yoree da nga koy yaatal donc lépp lu ñu mën a def ba mu yaatu danañ ko yaatoo yaatal muy déjà première chose. deuxième chose mooy dañ bokk ci coalition boo xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar ci suñ sous coalition coalition républicaine sàmm suñu réew. kon bu ñu dooleelee suñ bopp wala ñu dooleele suñ sous coalition dañu dooleelaale coalition président de la République Macky Sall kon suñu yéene lépp mooy mouvance bi ñu bokk fexe ba mouvance boobu taxaw am doole doo xamante ni lu jóg rek dinañ ko mën a contrecarrer te bu demee ci élection présidentielle bi 25 février 2024 ñu mën a gaje kon loolu moo ëmb yenn actes yi c'est vrai que beneen bi nekk suuf nag mooy il faut ñëpp comprendre ni doomu dëkk bi lañ fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo kon bu ñu mënee contribuer ci jafe-jafe yu population bi di am denañ ciy contribuer mhm. ñii am nañ problème mu casque wax nañ ñu ko moo tax tey ñu distribuer casque ñeneen amoon nañ problème mu machine wol wax nañ ñu ko ñu xool nan lañ ci mën a taxawee ñeneen am nañ problème mu pompe parce que seen kër dafa inondé ñu taxaw ci ñi am nañ problème ordinateur ci seen école ñu wax ñu ko ñu taxaw ci mhm. ci logique boobu lañ nekk ñuy ñaax aussi jeunesse bi wax leen ni leen donc nañ gën a am seen fulla am seen fayda xam nit ki bu réussir ci boppam la ñu bañ leen a woo ci violence ñu bañ leen a woo ci lépp loo xamante ni day yàq loo xamante ni ñoo ko defar hmm. wala lépp loo xamante ni day yàq loo xamante ni bu ëllëgee dañu obligé di ko defaraat donc loolu aussi c'est bu fort la buñ bëgg a lancer la jeunesse diourbelloise il faut que ñu xam ñu leen mën jariñ ñi nga xamante ni nii jóg nañ pour jàppale leen ci liñ nekk ñu ànd ak ñoom ci combat boobu mais plutôt que ci combat boo xamante ni nii la wala lépp luy yàq ndax ku tedd ki sax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa wax bu leer dëgg ak ak vérité ci kim nekk mooy jàmm moo indi jàmm parce que tey jii bu fekkente ni nekkoo ci dëgg nekkoo ci loo xamante ni politique de vérité la ala kulli àll am jàmm comme li mu waxoon ca ndar rek que la vérité soit avec celui qui est sur le droit chemin mhm. donc boo nekkee ndaw dangay nekk ci yoonu jub yekk ci yoonu sell parce que loolu rek moo la mën a mbay ndam ëllëg sëñ Cheikh Sidi Matar yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yokk ay leeram waxoon na ko fi ku yorwul doo yor dara ku teggi amul teggin tamit doo teggi dara ça veut kon ci discipline ak ay valeur yi fi mag ñu bàyyi bàyyi woon ci la ñu woo ñëpp parce que ci la ñu woo suñ bopp mhm. ci koñ bi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo mhm. mosuñu fee def lu ñaaw suñu fee wax lu ñaaw mhm. mosuñu fee toj këru kenn mosuñu fee saaga kenn mosuñu fee xas kenn mosuñu fee lakk këru kenn mosuñu fee wax kenn sax baat yu ñaaw kon logique boobu aussi ñu nekkoon ba agsi fii ñu agsi loolu la ñuy woo suñ ay jeunes frères. parce que logique boobu tamit bu ñu ci nekkee ëllëg ci seen biir dana ci am ñoo xam danañ dem ba doon yu mag comme ay Njaga Njaay dana am ñoo xamante ne danañ dem ba nekk ci ay chef d'entreprise yu mag ñenn ñi nekk ay ministre ñeneen ñi nekk et cetera parce que on ne sait jamais am na ci ñuy jàng et cetera donc kon nit ki bu fekkente ne dafa bëgg a defar avenir am day jaar ci yoonu tax avenir am mën a defar hmm. mooy yoonu dëgg mooy yoonu fa faayit xeex xeex génn sa njaboot ci situation bi mu nekk mais pas ci yoon woo xamante ne nii yoonu dëng la woo tey bu ñu la arrêté yóbbu la ci prison wala dara sa njaboot gën a am jafe-jafe nga indi leen ay problème kon donc yooyu yëpp c'est à éviter encore une fois tey man léegi mu am cinquante ans koñ bi fu ma neex jaar mosuma fee am ak kenn histoire mosuma saaga kenn mosuma dépassé kenn ci wax bu ñaaw waxuma la nag di manifester di toj wala ma yàq mosuma koo def kon yaakaar naa ne ñi ma gën a féete ndaw ñoom aussi maa ngi leen di woo ci loolu lépp lu jëm ci violence nañ ko éviter la culture de la paix loolu la ñu Cheikh Ahmadou Bamba jàngal mm-hmm. Jurbel dëkku taalibe la dëkku murit la Jurbel dëkku tijaan la Jurbel dëkku religion la en général mm-hmm. kon valeur yooyu nañ ko cultiver ci suñ bopp cultiver ko ñu fi nekk loolu mooy suñ jàmm parce que mooy jàmm dëkk bi mm-hmm. donc message boobu laa bëggoon a lancer di sant ñëpp di gërëm ñëpp